waaw gars yi maa ngi leen di siyaar Adamo la kaa bi mën lañ ko yónnee yaa ngi dégg te ki ma ko yónnee xam naa ko xam naa bu baax ki ma ko yónnee duma ci wax mais am naa droit woote mu wax nan la demee ngeen dégg ko su ma ci kaawoon àdduna bi tukki dama weex dunq rek ci ma ci kaawoon àdduna bi tukki may leen ma rek ma won leen alaikum soxna si. ziar si jàmm. ok defe naa Sénégal gi yëpp xam na xew jërul wax bi di gudd man damaa toog ba mu yow yaa ma vidéo yi yow sa jëmmi bopp Sénégalais yi nan la demee lan moo nga capturé vidéo yi ko ak nan la mu waaw sama copain

defar sama mais wane woo sa kii ba tey parce que enregistrement bi vidéo bi dañ koo téye ci kaw dañ koo dang waaw moo tax ma ne la wanewu ma dara su ma ok baax na mais yow lan moo tax nga am intention jékki-jékki yónnee ma vidéo yi baax na amul problème soxna si ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf merci beaucoup ok gars yi mi ngi noonu